ce que le président Macky Sall a fait à u ñu bëgg aucun président ne l'a fait au Sénégal depuis bi nekkee jëlee suñu indépendance ba tey. Mhm. nous a aidé à à à à à restructurer. Mhm. diggante à 2015 il nous a donné 60 virgule 881 millions pour restructurer et réhabiliter entreprise bi Dakar ñu presque à genoux. kon kon c'est le choix actuellement c'est le choix des hommes qui pose problème. c'est le choix des actuellement. Mhm. nous avons un directeur qui s'appelle Ousmane Sylla. on nous vend un CV en nous disant c'est un ingénieur des mines il a fait 15 ans dans l'industrie automobile et de la sidérurgie ñu ne ñu c'est un spécialiste de des entreprises en difficulté mais ñun cet homme là qu'on nous décrit on le voit pas à Dakar nous avons deux hommes nous avons l'homme politique et le technocrate qu'on nous décrit mais ce technocrate là n'existe pas encore à Dakar eh on voit l'homme politique bi mu remplacé ku tane ma mënuma wax ku tane parce que loolu bu fekkee ne am na ay rapport comme rapport Cour de comptes def na un rapport sur d'académie génnagul ba léegi mhm. dinañ xool lan la liggéey ak liggéey 2021 c'est exercice 2021 parce que Cour des comptes balaa muy ñëw d'académie day day prendre du temps 2011 la fi gëj ñëw 2005 te coup d'état dafa war a jaar chaque 5 ans xool. IG e war a jaar moo tax ma ne la état dafay injecté xaalis bu bëri jox subvention d'équipement après du am un œil dans ce qui se fait à mm. yi ñëw def lu leen neex. Mm. parce que am na benn loi bu ñu abrogé mu la ma neex loi 97 boobu article 19 dafa ne. les personnes morales de droit privé cest les directeurs yi fi nekk nga xam ne ñoom ñoo yor les organes exécutifs. Mm. bi ma gisee loi bi man damaa tiit je l'ai parcouru. maanaam dañu am immunité dañu par rapport à cela. <laughs> mais heureusement léegi la loi bi ko abrogé la loi 2022 8 19 avril bi dafa dafa réactualiser encore le contexte de loi d'orientation du secteur parapublic léegi bépp transformation société wala bépp projet bi ngay def foog mu am un jugement d'opportunité. Hmm. foog nga am étude d'opportunité étude technique ak un plan d'affaires pour ñu xool ndax li ngay bëgg indi comme innovation dañ ko mën a supporter malheureusement tey jii on veut redéployer Dakar Dem Dikk dans d'autres régions comme ce qui comme il a fait avec Kédougou. Mm-hmm. alors que amuñu benn moyen ñun amuñu dara Dakar Dem Dikk chaque actuellement maanaam mooy Sénégal Dem Dikk. Sénégal Dem Dikk suñu directeur actuel dafa créer un réseau urbain et interurbain à Kédougou. alors que Dakar pourquoi Kédougou. dégg xam nga da nga romb Thiès. romb kaw <laughs> romb Jurbel dem ba Kédougou def ko foofu. parce que Kédougou la dëkk. waaw parce que ils veulent conforter leur base politique xam nga moo tax ma ne la euh, on nous a décrit deux hommes c' est politique qui a pris le pas sur la wax ki ma lay wax léegi l'ingénieur là ki ñu wax def na 15 ans la ñu si automobile c' est un spécialiste de réseautement des personnes en difficulté xam nga entreprise boo xam dafa am un pléthore de cadres on récompense les métiers les plus inutiles en rade les métiers les tey bu ñu nee Dakar dem bi conducteur moo tax ñuy wax parce que moom moo lay may visibilité moo tax kuy dawal ak kuy ñëw hmm. Hmm. tey bu amul conducteur Dakar dem existé wul parce que Dakar dem oto moom lañ gën a hmm. ci mënuñu yi on a un pléthore de cadres ci moom dafa dem ba directeur bi fi nekk actuellement nee na la taille de la bureaucratie problème la ci Dakar dem dikk mu ne manque de visibilité ci organigramme bi ndax dañuy def organigramme bu fast bu illisible et artistique et les gens ne travaillent pas mu ne mu gis un taux de frustration ci salarié parce que ñuy ñuy salfaañ seen plan de dafa doy waar mu gis ne dafa am euh, le problème de la politique dafa dafa embraser la société mm. xam nga moo ko décrire moo ko décliner xanaa bi muy door ñëw waaw li mu wax nii yëpp moom moom la Tout ce qu'il nous a énuméré, il est en train de, de reconduire les mêmes erreurs. Celui qui n'apprend pas de ses erreurs, il est condamné à les répéter. Ah c'est sûr. Et c'est quelqu'un, man, que c'est chasse qui a un fort potentiel. Mais ce potentiel-là, l'homme politique moom muur le technocrate ba tey jii ñoom il prépare les élections à venir et non pas l'avenir de cette société-là